ku mën a dékku lax rek mën ngaa dékku mën ngaa dékku Sénégal. loolu leer da ngay dékku Sénégal déedéet dékkuwuma ko. da ngay waaye dama ne la ku mën a xaaral waaye léegi danañ ci ñëw. li nga bëgg a dégg. non non non xam nga lu ma lay wax ne ku mën a dégg Kaolack mën ngaa dégg Sénégal. Senghor moo ko waxoon moo ne woon. kii àll Sine Saloum àll Sénégal. d'accord léegi. waaw yow yaay meeru Kaolack. waaw le bassin arachidier. waaw Saloum. Hmm. mu nekkoon jusque là un bastion présidentielle. Mm. bastion de Benno Bokk Yaakaar. Hmm. aujourd'hui mu tombé dans ton escarcelle. Mm. Kaolack contre 700000 habitants. Hmm. Ousmane Sonko am na Ziguinchor. Macky Sall était le maître incontesté de de de balaa muy ñëw présidence hmm. Idrissa Seck fut le maître incontesté de de tey yow fort de ta légitimité à Kaolack. est que yaa ngi mébét. fitna nga bëgg. yaa ngi mébét fitna nga bëgg a tijji. <laughs> yaa ngi mébét fitna waaye xam nga sama réponse. non Serigne xaaral est-ce que yow fort de ta légitimité à Kaolack yaa ngi mébét 2024 nga samp sa ndënd. fitna nga bëgg wax waaye déglu rek. déedéet Serigne waaye déglu ndegam président de la république moo waxul ne day samp ndëndam ak du samp ndëndam. <laughs> waaw man. man ah dama lay wax. dama waaw li sama yoon. sama yoon la ci dara damay xaar ba mu wax. da xaar ba président wax may mun nga doog a wax na yow da ak waxam. Ah. Ah. dafa compter ki décision bi may jël. ah bon. dafa compter intérieur li may wax. Ah. ça c'est très important li may wax. na bu ma ko de. li may wax dafa leer. Uh-huh. ak waxam xam nga affaire bi moom ñett fi nekk man moom dugg naa ci mbir mi élection du am ma courage les bras mun da nekk wax day leer mm-hmm. mais intérieurement li sama xol di wax. mooy bala ma cee mën a wax ma xam man fan laay féete mais damay xam ñi bëgg. Maymuna loolu kay day leer. Maymuna xoolal man je pense man mii la. tey jii fii ma toll. ndegam yaa ngi may wax maa ngi naan la j'attends pire mais attends soo ma déggoon tey bi ñuy wax ay affaire Kaolack ñu ngi coow mu dégg ñu ne sëriñ bu doo bëgg président du ma yokk noonu mais bàyyi ma ma régler sama Kaolack. waa président bàyyi ma bàyyi ma nee dafa dépendre ci ñaar sama position. mooy président de la république. mu wax waxam ci boppam mën naa ma décider ne du ko contre mën naa ma décider ko. contre ko. non contre ko gëwuma ko damay wax gëwuma ah, ko doomu aadama nag nit la. Mhm. xam nga alxuraan dañ ne wala taquluna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa insha allah nit day réservé wu. yàlla ne bul wax dara mukk ne danaa ko def allah li ma jàpp nii sama bopp bëgguma ko contre ci dara. buy wut dara bëgguma ko contre kooku moom loolu laa jàpp moo tax ma ne la sama décision ci loolu la def beneen bi mooy bokk na ci ma doxal ci réforme yi may def ba fekk si mois moo tax ma yaakaar ne sax yaakaaru ma ne danaa dem ci élection yaakaaru ma ko waaye nag su ma demee opportunité am ba ma yaakaar ne mën naa bokk man déwuma pour nekk président de la république déwuma ko sincèrement mën nga ah bokk ah bu opportunité boo xam ma xalaat ku may tee ngay jëru si je te bu dee président dafa bokk doo xëccoog moom waaye bu bokkul mun nga bokk waxuma la ne la bu bokk dama ne la quand je vois l'opportunité mais je ne vois pas l'opportunité wul xoolal ren la déwén nag le personnage j'ai une autre opportunité de faire travailler ma xam nga le personnage de Serigne Mboup ça intéresse mais aussi tamit ça intrigue ça intéresse parce que jàng na te mënal na boppam. Ah. waa intrigue parce que mënal gi nga mënal sa bopp nekk un un opérateur économique wëlbati ko yor loo xamante ne état bi da koo soxla te bu ñu sañoon. état bi dafa soxla mairie bi. ñoom bu ñu sañoon mairie état la. waaw waaw d'accord non cest il faut il faudra me comprendre en ma logique politiquement. ah politiquement c'est-à-dire li may def. président li may def ah, mais yow da di. ah da ngaa di. danaa la bi may dem di gañe. waaw da ngaa joŋante gañe bi may dem waxtaan naa ci ak moom. faire ah. am na candidat mais xeexuma ma ma paree ma ba tey gisuma. man li ma la wax nii man man gis nga ñu mel nañu déranger wuñu état. Ah. xam nga ñu leen déranger. waaw bàyyi ma bàyyi ma Serigne bàyyi ñu mën a avancer. c'est-à-dire ah. un opérateur économique bu mënal boppam. di def politique état xamul ba xam ndax danga ànd ak moom ak àndaloo ak moom nekk ci logique gu troisième mandat. loolu moo tax nit ñi di loolu moo tax nit ñi voilà loolu laa bëggoon dégg waxaat noonu xaar xaar pareegu ma léegi loolu